asalaamaaleykum internetu info réew mi ñu a baax di leen jox seen wàccuwaay ñi ngi nag ak sama càmmiñ sama xarit muy Jules Jules nag comme ni ñu koy defee émission wàcc ci terrain bi yaa xam lépp loo xam ne moom ngay yëngu yaa xam ngay théâtre maa ngay way lépp lu jëm ci aar ñun ci loolu la ñuy dox ba tax na nag tey dañoo seet koo xamante ne ni l'homme cultivé nit boo xamante ne ni li mu def ci aar kenn dootu ko ci dund ba éduquer ay xale mu nekk nag suñu papa nekk suñu xarit grand Lamine Ndiaye ñu ngi koy nuyu di ko jaajëf jaajëfal bu baax a baax tey moom lañ seeti fii ci sama émission Sama Star fas yéene waxtaan ak moom ci rumeur yi nga xamante ni yëpp ñu ngi koy dégg tout ce temps ñu daal di ñëw pour fas yéene waxtaan ak moom di ko laaj yaram bi nga xamante ne nii moom moo sooxe woon fan la ci toll papa ñu ngi lay nuyu di la gérer. di fay di leen jox seen wàccuwaay yaakaar naa dinañ def émission boo xam ne nii bu neex la bu mucc ayib li nga xam ne yëpp. moom ngeen doon dégg kon ñu mën ko ci tekki ba mu leer ci bëtu nit ñi nopp nit ñi lu tax ndax euh, am na ci wax yu ñuy dégg xam nga ko ëpp li mbokk mënoo ko jëw te ndem rajo yaa ngi fekk télévision yi te ma am ay mbokk yoo xam ne dañuy seetaan am na ci yenn yoo xam ne nii nit ñi sax d'accorduñ ci am ci yoo xam ne nii nañ ko waxee bu ñu juboon ci woon baat yi ak tamit euh, waxee ko na mu demee woon doon na gën ci man parce que dem naa sax ba ñu wax ma ne ma amna fo xamni dañ ne sa image ba pare bind ci souf RIP cela veut dire amna sax ño xamni ne dañoo xaabaabal ba rey ma te yàlla rayoguma man yàlla may ray mais du nit du doomu adam doomu adam dal lima sax ak mom te diko gëm ci mom moy ay waxam ak jifam bu wesso lolu lu ci deung lu toll ni tarfatal ay ni rek yàq na diggante bi moo tax ma jafe ci bor bobu Euh, sérieux avec euh, son partenaire sérieux ak euh, ñi may jëflanteel ci biir àddina bi gannaaw loolu nak mo am nuyoo bu may beral ak diko ko jagleel sëriñ sépp ci këru diine yëpp ci Sénégal xam nga bo limé mën nga juum donc bàyyi naa ko ci xel nit ñi ñu tekkil len ko tekkil ko sen bop ba paré parce que loolu yëpp sedd len la parce que ñi ngi waxanté ils sont hyper intelligents sinon comme toi ou plus que toi waaw loolu nag da koy eh, ci yar da koy considérer jox nit ki àqam ak wàccu ayam ci loolu parce que jarul nga naan ko faut être intelligent surtout le sénégalais ci liñ ko xamee li tax ñu naan ko connaît ci waxam ju bari la ak jëfam ju bari li muy wax ak li muy jëf dafay bari ci gëttu nit ñi wala ci déggin ci noppu nit ñi ba nga xam ni ni eh, dañ naan eh, sénégalais connaît tout la daal te loolu baxul aussi tamit nga diko woné nit war nga waccé sa bop sa dayo nu mënti tollu waccel sa bop ne veut pas dire suufeel sa bop yoy dafa lèr waccé sa bop moy nga mën a ta société respecté nit ñi jox leen seen gëdd ak seen wàccuwaay boole ci tamit xam ñom ñoy ñan parce que loolu dafa am importance xam nit ki nga jàkkaarloo moy kan nga respecté ko dafa am solo loolu en fait nekk na fot boo xam ne yii ñoo koy kabade ci diggante yi ci béréb yi ci dëkkuwaay yi ba ci kër yi donc loolu aussi tamit ñu jéggal ma ci rek euh, xëy na du ñàkk ci biir émission bi mu am yuñ ci rectifier ma am nag benn boo xam ne nii metti na ma ba ca kanamu yàlla. ban ban bi ma metti mooy xaw ma ku ñuy tuddee général. ci jiji la xaw ma daal waaw ubbi plateforme am ba pare mi ngi def ay rasta rasta yooyu li muy symboliser mooy Cheikh Ibra ñëpp loolu la ñu wax mais nooy ubbee plateforme nga rasta cela veut dire am na benn respect booy jox Cheikh Ibra te Cheikh Ibra amul loo xam ne nii liggéey na ko sëñ Touba mu am ci gàkk-gàkk yow nga am maxam ubi loo xam ne nii la ci waroon def ci jébbal ko askan bi moo di loo xam ne nii lu jubu la euh, li def lii la euh, dafa am benn ndaw soo xam ne nii moo koy mooy wax moom day def ay grimace te yooyu ñun jàng nañ yooyu nit ki buy wax nga naan eh nangam nangam yow yaa ngi bokk ci ñiy sabote wala bok boo ci bokkul en tout cas le fait ko nga jox ko micro moom muy wax yëkkati baat yu ñaaw saaga sax def nañ ko mais man dama ko jéggal parce que image yi mu wone sëñ Abdou Lahad moo ma njëkk feeñ ndaw si teg yekk ko ci loo xam ni mar détaillé waaw waaw kooku nag nguur gee ko def parce que ñi ñuy jox plateforme dañ leen war a tànn seppil ñoo xam ne ni dañuy lakk dëkk bi noonu la ko mën a tuddee que lan moy maqama yow boko gemul gëmul me mais nga bàyyi ko Lulul, ak yi nitam dafa dem sax ba dafa feñ ci ci tarixa yon fat dafa dem ba dafa dafa ag, ba ci tarixa yi a ce moment ñuy gën di dem man je pense que né entre murid tidiane xaadir layen ñaseen ak kum ci mënti doon dina am ben euh, impact bo xamné dina ko def ci tarixa yi parce que dañuy tok ci réseaux sociaux di waxalante yu ñaaw wa xam nga loolu dafa am lu ñu wax nit ki ak lu ñu wax nit ñi li ngay nit nga wax fa télévision nekku caméra à plus forte raison un journaliste pour commenter Nous, fañ doon waxee ak nañu man wax bu parce que lu ma la xam parce que métier bi def la tenue qu'il faut da nga en face d'une caméra dañ lay xool di le juger tey bu ñu la waxoon ni bandi laa wuyu nangam nangam ñu ngi may tëj kasoog di ma tijjeeg di ma nangam image boobu ngeen ñëw di ko wane seen plateforme cela veut kii yéen a ngi feeñal ay jëfam boo leen ci tegee saaga nag yéen a ma tooñ ak ku feeñ ci image teg lu ñaaw ci suma der ma ngi may tooñ su ma xamoon sax warul teg lu ñaaw sama der waxatuma lak nag ba mu ma ñàkkee xam parce que sama tur dëgg moom xamu ko moom ndaw soosu doon wax donc man li tax ma jéggal ko benn jigéen la man jigéen lu ma ko tuuti parce que jigéen ndey la ma respecté jigéen jox ko cëram ak wàccuwaayam xamu loo ma xamuma la bul ma yàq parce que doomu jàmbur laa xalaatal ni ëllëg da ngay juri doom te li may wax mën na fayu ji ëllëg say doom parce que àddina moo mel noonu jamais deux sans du dañ koy wax te booy waxal nit ki nag booy waxal nit ki na fekk nga xam ko bu leer bu baax am ci ay firnde yu wóor loolu sax dañ koy tere ci lislaam bu duggoon fu bon doo ko waxal lu bon loolu sa gis-gis même bu dee lu bon bu ko ko waxal parce que boo ko waxalee yaa ngi koy tooñ defu lo wax la nga tepp diko ko ci ay biir ay télévision yooyu yoyu diko wax yoyu dafa ñaaw te suñu réew mi melul won non amna ci ben télévision ben télévision en ligne bo xamni ni waaw site internet ñëw na fii jël si ma mais ñu rocc ci image fi may joyé ñu interpréter joy boobu yaakaar nga xaalis bi ma doon laaj sama gaañi looloo tax ma joy comme feewuñ ma yéen ñew ngeen ci kër gi li yépp samay tukki ay ak euh, contrat yi may am moma ko may comme man jëluma ko diko ko yàq ak diko battre ci biir xew yeeg yooyu j'ai fait de cette maison là j'ai construit cette maison là donc loolu ñoom xamuñu ko bu ñu ko gëstu woon nag danaa leen wax fi ma jaar ba kër gi taxaw mais mais ñoom euh, est-ce que yaakaaruñu tamit peut-être bi nga xamante ne nii ci nga nekk ñoom ñoo tax ñu dem interpréter loolu dem dem jële ko beneen beneen beneen sens mais papa tawat ji fan la toll. yaa ngi am bu baax. waaw maa ngi sant tu aurais dû commencer sur par ça mais nag du ma la jàngal sa métier parce que bu la neexee fooy doon sa mbalax xam nga yaay tulli yaay mbalax yaa xam sabar bi ngay jiital waaye boo yore woon ndeer da ngay annoncer. ñom ñu ñëw fekk ci la koku kooku euh, non lañ koy jité ndeer wala gorongu mbabas du xam créé bu ami ndaw mais mais day non non non mom day wuyu day wuyu comme ndeer xam nga ndeer dafa gudd gudd bobu le son bu muy dugg sax ci ne peut-être du émission mais lecture lecture la lecture la ci ci ci communication bi la bokk pour wane ni man dama sedd sa mbopp fépp tey boo mu indiloon sabar naa la woon wala bu fi sabar bi nekkoon pièces yi nga xam ne nii ñooy tëgg sabar bi yëpp man lu ci nekk xam naa ko ci xam turam te it jëfee naa ko parce que damay fecc damay tëgg damay woy damay jouer guitare yu ci bari yàlla mënloo na ma ko ma téye ko denc ko ba ñu laaj ma ko ci liggéey bi nga xam ne nii moom lay jëf mën na neex nit ñi mën na naqari nit ñi naa ci def daal xam-xam bi ma xam euh, yàlla beral jox ma ko loolu daal la xam ànd teg yarute ak yaru ak doggu teg pastef c'est-à-dire moo may yokk jom ak volonté euh, fu bari jaar naa fa. woy bi daf ma daan aider parce que boo nekkee comédien woy bi da lay permettre yow nga mën a nuancer harmonie bi ak euh, mélodie bi parce que baat dañ koy liggéey loolu dafa am harmonie dafa war a am harmonie am mélodie loolu yëpp ñiy def musique xam nañ loolu bon woy kat yu ci bari dañu jékki-jékki rek xaaju boo xaajoo mën nga dem gaañ gaam boo xam ni kuy jouer guitare bu mën na la jouer ci gambo mais est-ce que am na yenn booy def ay harmonique yooyu booy wàcc wala ngay yéege mbaar mbëfër njolli noonu la ñu tëggee kii tëggee donc euh, euh, wax ji kii day mbaaral kii day mbëfër donc ñu koy wax euh, ci nasaraan boo yëkkatee yaa ngi ci octave yi donc mooy gën sori

man sama baat nii melul woon ni li tax mu xaw xuur ni am ko liggéey pour am ko ndax bu njëkk ba su ma nekkoon ci néeg nga nekk ci biti su ma waxaan da nga yaakaar ni jigéen moo nekk ci biir fii biir néeg bi voilà sew boobu nag dafa ma permettre may am euh, su may mbëfër am euh, euh, groove boo xam ne nii dafay diis donc loolu la baat dañ koy liggéey

mais maa ngi lay gërëm di la sante ndax li nga def ci ñun parce que Cheikh mbay mujj gi doy bax bu daan liggéey ay liggéeyam exemple lu ci man la ko daan jël ni nga ko daan defee ni ma ko daan ki parce que comme dama daan fecc aussi di teug xam nga kon donc bale bi day ñëw ñom biñ doon dem Norvège muy roy bax euh, man contribuer na ci sen voyage en montant des des des des des bale yoo xam ni ñoom ko yóbboo bi ñu le dañ leen laaj kan monté Lamine ñu anamu kuy Lamine Ndiaye ñu bon on l'a laissé au Sénégal donc euh, lolu tax Norvège roy mais fa ils ñom ñëpp dañ leen doon laaj ñu ne monté Sénégal parce que damay def chorégraphie aussi donc lolu yépp waaw mais euh, chorégraphie euh, da ngay am système ak xam-xam Euh, du pas de danse quoi chorégraphie mooy naka ngay toggee tëgg affaire bi sur scène comme boo doon def mise en scène pour que fecc bi jaar yoon woo xam ne nii dana doon spectacle mais dootul loo xam ne wala spectacle boo xam ne xam nga spectacle boo ko defee rek war naa mën a tekki loo xam ne day jàngale alors chorégraphie aussi tamit dafay jàngale li ngay kii am na ci woy yoo xam ne mënu ko def chorégraphie boo xam ne nii mu ànd ci nekk loo xam ni nii ci bëtu nit ñi ak seen xel jàngalay indi ci joom wala muy duy xam-xam tubaab du ci def lenn loo xam ne nii amul tekkin woo xam ne di ko mën a wone euh, nit ñi bëgg ko parce que loolu mooy spectacle mais ñu booy fecc fecc ci mbedd mi noonu wala fecc boo xam ne nii daal da nga ko improviser nu mu la neexee te fecc ci boppam nit ki lu mu ay ay ay am na yoo xam ne nii boppam moo ko moom ay phase am la yu muy génne donc mom amna ay chorégraphe yo xamni c'est personnel parce que xam-xamam moo ko may donc euh, loolu la té dañ ko ci wouté amna chorégraphe yu mag yo xamni ne nii dañ lay jël histoire Sunjata defal le chorégraphie boo xam ni mu boole ko théâtre ak yoyu ba parti ci bari euh, c'est dansé. mais foogoo ni tamit théâtre sur scène dafa commencé daanu parce que gis nañ ni téléfilm yi moo ëpp cinéma bi moo ëpp que théâtre sur scène.

Cheikh Ndaw ku ma respecté la naw parce que nek na koo xam ne day bind même bu day bind mais en wolof day défé pièces donc wolof bobu da nga ko war a ba mokk rumbux ba bo waxee dañ dan ki day olofu siin la wala olofu saalum wala olofu dal lim ben gox fi ci Sénégal jolof jolof euh, ki barul bawol yoy yëpp seeni wolof dafa wouté Cheikh Ndaw noonu lay bindé donc pour comprendre ko il faut nga jàng li mu bind guy njulli na nga fexé ba waxu rek fexé ba am guy tout est écrit en en en wolof c'est un spectacle bo xam biñ ko monté à Sorano on a fait quatre heures de temps ci scène bi wallahi mais mais papa fini instant bi xalé yi fi nekk amatuñu condition taxaw sur scène quatre heures de temps. wa mais xam nga lolu bo nekkee comédien té do liggéey sa physique mom sa condition physique dang koy liggéey. soo bëggee baat bi di njolli nu mu la neexee ak ngay mbëfër wala ngay ngay ngay ngay ngay baaral ak yooyu loolu yëpp boo koy def da ngay liggéey sa coffre parce que wax ji du génnee ci dënn bi wax ji fii lay génne waaw loolu am na ñoo xam ne wax ji ci seen baat lay génnee loolu aussi da koy liggéey ba mun a am sa dënn groove boo xam ne boo waxee comme ni ma yoree ci baat ni yooyu yëpp dañ koy liggéeyee moo tax théâtre moo gën a jafe film théâtre ak téléfilm yi bokkul ba télévision ñëwee ba léegi nag théâtre bi daf ko daaneel presque da nga gis léegi euh, je l'ai pris en exemple euh, kidnapping est-ce que xamoon nañ ko fii Sénégal ba léegi waaw kidnapping non damay laajte kidnapping mooy jël doomu jàmbur denc ko di waaw kidnapping di di ko laaj koppar ak yooyu fii est-ce que bokk na suñu xar baax maa ngi seetaan benn émission boo xam ne nii euh, muy Sen TV mu am ci góor gi xam ma góor gi mbay la xam nga je plus euh, xëy na peut-être ci image bi ñu koy gisee dañ naan góor gi dafa lakkale mais ñu ngi génne loo xam ne dañ koy wax dañ ko waroon tibbee ci cosaan moom génnee na cosaan boobu ci virginité euh, jigéen lañ doon wax waaw moom wax ni bu njëkk ba nañ ko daan defee da ngay ñëw suul wanag wi ak ndox euh, kii suufu benn bon suuf boobu bu jigéen ñi ñëwee saw ci tu dois être en mesure et capable xam ndegam kii am na ndawam ba léegi wala déet xam nga loolu jafe na mais tekkin wi moo jafe parce que tekkin wi c'est culturel xam-xam la waaw boko jangul xam euh tour ndoxu jigen nu nu mu doko meuna xam Nous ta xam lu jafé ak ni actuellement ñu ngi am ay toilettes bu soxla dem ci toilette bi amna chaise euh, anglaise nga dem gis pour xam si tu vierge ou pas donc c'est compliqué un peu.

ak njàng la laaj xam nga fii su dee culture rek nit ñi dañu yaakaar ne xam-xam bu tëju la te naam xam-xam bu tijjeeku la parce que day defar nit ki culture loolu lay jëriñ euh, xamal la sa xar baax xaw say démb ñu xam yow yaay kan ñu nga sénégalais ba ci respiration am sax c'est culturel. mais bi loolu loolu ko mais dañ ko war a nag jàngale yéen nii ngeen di def ni ñëw jël si ma. boo leen ci doon def ay émission jaar fu ci bari jël ay nit waxuma man kenn ñu seet ma mais ñi ko xam lii may wax ni bari nañ ci dëkk bi au lieu que ñu dem ci ñoom tendre leen le micro pour ñu wax ci ne dégg nañ nangam ak est-ce que loolu loolu nu mu mënee am ñu expliquer la xamal la parce que euh, je crois que Jean moo ko moo ko moo ko tontu bon ñom ñaar bokkuñu góor gi ak euh, mom bokku ñu bokku non bokku ñu bokku ñu expérience ba paré bokku ñu xel ki mi ngi wax dans la modernité parce que douche et toilette yi yooyu moo am euh, contrairement ak euh, camion ben bi ngay soti ñu gis ci découvrir né ki kat tour na ndox waaye bo xolé tour na mu touré ndox euh nekkul jànq donc

parce que méngoo ñu nag am na lu leen wuutale culturel ak culture waaw. papa naka nga gis instant bi nii euh, série yi nga xam ne ñoom ñooy daw parce que gis nañ yéen bu njëkk seen seen seen ay théâtre yi nga xam ne moo daan am RTS par mardi long métrage yi da nekk série yu da nekk théâtre yu am solo nga mën a toog ak sa parent seetaan ko mais instant bi gis nañ téléfilm yu vulgaire gi nga xam ne moom la vulgaire da ngay am complexe sax pour toog sa famille seetaan ko naka nga gisee loolu ak ban jàngat nga ci am. xam ñun bu ba bu ñu télé war ko téléfilm yi parce que loolu ngay wax euh, téléfilm mooy film boo xam télévision ko or bu ñëkk ba ñun ay captation la en 72 je me rappelle très bien nous ñëw le matin espace bi réservé ne plateau bi dañ daan décor Coco, les anciens de la télévision sénégalaise, on pose le décor le matin et l'après-midi, il est jouer tourner. Mais lolo captation le tout. ci mbind bi waxuma la le décor bi lepp dañ koy waxtan ci avant ñuy on a le temps d'aller répéter